daa bu njëkk bi muy ojo fuité niñ ko mën a tuddee démb pratiquement ci waxtu wi daanaka bi waxtu wi xawee xuus tuuti ci la audio boobu génn muy diggante mbaaco ak ki ñu naan Sofia su ma juumul Sofia xooma xooma nan sant bi laay fàtte Sofia xooma nan du Sofia Seen mu ngoog dama koy bañ a jaawale Sofia Thiam seen bëgg ceeb waaw Denis ah. TV xam nga dafa am Sofia Thiam foofu Euh, te Sofia moom yoonam nekku ci Sofia Sène Sofia Sène dafa dañu gis benn audio boo xam ne audio bu fuité ñun nag comme ni ñu koy defee Feeling Dakar ci saasa fexe nañu ba jokkoog moom Sofia Sène euh, waaye am na lu jot a expliqué comme quoi ko moom audio bi génnewul ci moom xaw ma nag ci kan la génne mais moom génnewul ci moom moom ci làmmiñu boppam waxal na ko boppam nee na man de génnewuma ojo yi beneen bi def nañu gëstu ci ñaar ñëpp kenn ku ci ne. ban taxawaay nga am ci say nit kenn ku ci ne laaj nañ la laaj laajte nañu yow yaay kan waaye Sofia Sène ñu baree bari dañ naan nit la koo xam ne ku yaru la maanaam lii mu wax nii sax kenn xamut naka la def ba wax ko ñu bari ñu ngi posé question boobu naan nit ku yaru la te en plus moom ak Mbaaco ñoo daan bokk même chambre bu ñu daan fanaan maanaam euh, mën nañ ko tuddee doomu Mbaaco la woon doomam doomam la parce que noonu lañ ko mën a woowee yàgg nañu trop ñoom ñaar lan moo dugg ci diggante bi ba ay jafe-jafe am ci loolu moom la ñëpp di laaj ba lu mel ni génn ci ci ay xeetu kàddu Jimbori dangay partagé waaw mais ak marque xam nga man mm-hmm. xaw ma Safia Sène xaw ma waaw yaa ngi dégg mm-hmm. euh, parce bi mu nekkoo yow yaa wax euh, gel bi sant caam xaw ma nan yaa ngi dégg ah. parce que ñaar ñooñu sant caam la xaw ma il paraît que xam ne tudd waaw mooy mooy mus naa la ko fi wax ñoom ñaar bu leen neexee dañuy ànd bu leen neexee ñu xuloo ba màtt gejj gi weerantewaat lu waaye wax nit ñoom ñaar ñu nettalante ko xaaj France ñaar yaa ngi dégg waaw ci ñooñu la mbaaco demoon di sinap dañ ko sinap affaire bi si sinap la génnee moom muy wax ni euh, du ma du ma waali bañeel benn xale mbaaco loolu la wax waaw envoyé ko kee fekk kële dafa xuloog ñële yaa ngi dégg mbaaco aussi nee nañ dellu si waat si kële ne ko na moytu ñooñu yaa ngi dégg mm. léegi nag kee génn bi mu gisee lële fële kee génn parce que soirée bi Penda Guissé moo ko doon way. waaw moment bi coow li am moom ma nga ca kaw seenam moom di waaw Pendo kee di sinap. tudd nañ ko ci moom waaw ok mais bi gel bi attaqué kii bi mu attaqué ah, Mbaaco. Mbaaco dafa ne ko pendoo moo ko wax te Pendo moom. wax dëgg yàlla xam nga yoonam newu ci. wax dëgg yàlla moom bi loolu amee pour préciser daf koy jaral mu dagg bee demaat ba foofa. leeral yëf yi expliquer lépp waaw mais xam nga xam nga man lan laa ciy wax mhm. man dama def ni woon nit boo jógee ci réew mhm. dem ba réew xanaa am loo kenn koo gis soo xasee taxaw aéroport di di jël vol mhm. xoola kenn nit kooku day représenté 17 millions personnes yi nekk fii yépp parce que am na loo xam ne man su ma xasee ba génn dem beneen réew. du ma ko def parce que sénégalais gi ma doon mais bu fekkante ne affaire ruube bu ñuy def fii dañuy dem ba Europe aussi di ko fa def rafetul du dëgg xam nga lii laa waxoon te mu nekk sa voix bi ma wëlbatikoo waxaat lii te mu nekk sa voix kooku kabat kooku ba tey tamit kenn du si mën a kii comme Mbathio doomam la ba bare dafa am kàddu bu ñaaw bu ci génnee cest à mooy lu mu ne bi ñuy am doom foo nekkoon danga doon am doom di ubbi foos di ko ci sànni. juróom waaw gis nga ñooñu su fekkonte ne man dama damaa res justice wala ma res dara dinaa leen toppaat ma laaj. wóolu oh, si parce que gis nga genn wàllu booy yépp fii ci Sénégal euh, ñu ngi leen suul si bopp ko ñi ñeen ñi nekk ci foos yi wax dëgg yàlla. parce que am na temps bu xam ne xale manqué ñu mel nii ñoo manqueel gone yi comprendre nga ni mu la wax gis nga euh, def lu bon mhm. yombul de. ak jafe bala nga kaa def fu ne ngay làqatu. ak jafe parce que tey jii am nañ boo ko de laaj ko ñi nga xam ni ay irikat lañ boo da nga bala ngaa àbbu néeg bala ñu laa jox néeg bi bala ngaa luye ji néeg ak bala ngaa luye otoog yooyu yëpp làqatu gu métti goog ngay làqatu. yaa ngi dégg ànd ak sab gel boo yoree sa jabar da ngay toog nii rek mbooloo mi yëpp toog nga toog ba guddi paatoye kaay tëdd gaay kon ba suba mu naan léegi lañ tëdd de te yaa ngi tëj bunt bi tëjoog moom kenn waxul dara yaa ngi dégg kon def lu ci yooyu boo si demee ba doom am ci wala dara am ci bu dee am na ci ngir yàlla ak yonente bi respecteel bakkan yooyu ba pare gis nga ñaari nit boo leen seqee kóllëre ngeen xuloo kenn ku si nekk dafa war a am lu mu dencal moroomam mais man da lu ma gën a jaaxal te jaaxal ma man bi Mbathio amee fii coow pour man coow li du demaat fenn quoi parce que gel bi coowal Bercy bi bi ma leen doon wax fii benn bis ngeen naan ma est leer na ak leerul da ko leeralaat ñàq yéeg bi mhm. da ko leeralaat fattal foofu bi mu ko fattul ma ñëw ne leen kii daf ñoo waxoon day fatti fattul lan moo ko teree fatt diw moo ko teree fatt ñu werante fi werante bu rëy parce que su fekkee xoola nekkuñu fi nag pour xas mbaaco wala pour xas seen gel bi waaw Sofia Sène mais dara bu amee Feeling Dakar xam nga lan la def suy def jàngat pour ñi nga xam ne nii pour bu ëllëgee nit bañ a def lu demee noonu lu dëgg moom bu nee mbaaco yaayam la yàgg naa tëdd ak moom benn lal yaa ngi dégg kon moom xamoon na mbaaco bu baax koo tëddal ay ati ati at nga toog benn bis àttana jóg dal ci kawam noo kon xamoon nga ko. est-ce que du dañ koo tooñ. déedéet même bu ñu la tooñee ma ni. Ah. tey jii su ma amee sama yaay ma ni kii sama yaay la. Ah. lu mu gàtt gàtt di ci xam dëggu mbaa nga xam ci ay fen. am na wala amul ci lu waa léegi boo la moo sama yaay la lan moo tax munoo muñal sa yaay nettaleem yooyu. lu tax yaay tamit. mënut a fexe ba yiir doom ji ba du dem ci ay bañ. waaw non non dama ne mag su deful yëfi mag. léeg-léeg dañ naan xale defal yëfi xale. d'accord léegi Sofia kii euh, Mbathio Ndiaye deful yëfi mag Sofia tamit deful yëfi xale. kenn ku nekk dérapé fu mu nii kenn ku nekk dérapé nga dérapé boo xam ne nii ñu àndaat àndaat nag mën nañ ko parce que léeg-léeg da ngay gis ñu xam ni dañuy def art quoi art artiste gis nga art am na loo xam ne bokku ci. mooy ñàkk jom bokkul ci art. comprend nga li ma la wax fulla ak fayda ñàkk ful la ñàkk fayda bokkul ci aar du de ku ko ci dugal yaa ko ci bëgg a dugal comprend nga li ma la wax ba pare comme ah xoola nga dem ñaani nit mu may la jarul yàq keneen jaru ko man bu ma ñëwee bëgg nga may ma ma fay yàq ndey gay pour nga may ma quoi léegi ndeygay laa tay la pour yow nga jox ma mënaan la gëy nii ndey ndeygay naa du ma ko def te bu subaa ma ñëw toog ak ndey ndeygay waa ok xam nga lan la ah, yow booy wax ñu lay sinap xam nga tey boo xasee Sénégal léegi boo xasee siiw doon ku ñuy ràññee loo wax am na ñu lay filmer ca suuf boo filmer wul sa bopp ñu ngi lay filmer loo loo def. waaw loo dugg loo dugg nay leer en tout cas ba pare tamit xam nga lu ma jàpp mbaaco mi wax dëgg yàlla su doon man damaa bokk ak moom dara lu toll ni tarfatal ay ni mm-hmm. dinaa waxtaan ak moom est-ce que est-ce que waxtaan ak moom pour mu retirer wu complètement ci géewu biis bi bàyyi. Mhm. nekk ci leneen gënul woon ci moom. non xam nga mbaaco dafa am benn sens. du woykat de mais bu bu wayee bu kilibee mu neex. mais du waykat quand ay kilibkat lañ. parce que tey jii boo doon seet tey exemple mbaaco Ndiaye kilib daf ko war a mën parce que dafa yàgg kilib lu waaye yàgg am ci cër. Ndeye Gueye mii dafa war a mën clip parce que xam nga lu tax ku mas a defar sa way soo bëggee mu rafet da ngay woo Ndeye Gueye wala Mbathio Ndiaye wala ñoom fecckat yooyu kon bu woyee way du soo su wayee way même woy bi bu bu la neexul bu ko clipee mu neex la parce que xam nga lu tax ay clip kat lañ dañoo yàggat def clip yaa ngi dégg léegi bu doon man maay moom damay yem ci sama clip googu bu ma amul ku ma woo clip ma def sama benn affaire sama benn single clip ko génnee ci dëkk bi su ma ci mënee am lu ma teralee sama bopp ma teral si sama bopp te seet góor gu baax te sëyi fa. gàllaaje gi noonu de. ah gàllaaje gi noonu xoola bu billaahi wallaahi su fekkoon ne mun naa arrière mu delluwaat ginnaaw yaa ngi dégg parce que àddina nag moom nit ki euh, nit ki dara weesul dara du wees. su seetee jëkkër ju baax mu xam ne am yàlla yàllaay buur ñàkk yàlla yàllaay buur siiw neex na siiw neex na yaa ngi dégg mais sëye ko dàq yaa ngi dégg mu wut jëkkëram ju baax dana doon na gën a baax parce que gis nga jigéen yii nii muy def nii est-ce que xam nga lan moo ko waral Aliou ñàkk am kilifa xanaa xam loo jigéen bu fekkante ni dafa war a sëy te sëyul bopp cokkeer lay yor bopp cokkeer lay yor du jóg xoola sa jigéen bu war a sëy toll ci sëy waxuma la dara dem bay dépassé sëy te sëyoo xoola musiba gu jóg pour yow la barke rasulullah parce que xam nga yàlla yàlla moo bind jigéen pour ñu yilif ko lan mooy showbiz parce que da doon fecc kenn du fàtte ni fecc na fi clip yu neex def na fi lu ne du dëgg loolu du dara liggéeyal na réewam mais loolu bu bi mu paasee mais waa gars yi lu paase du ñu nangu ni lii jeex na. ñu jàll ci leneen. waaw xoolal ak fii rek ngay gis ko xam ne day bëgg a def dara ba xëy yeewu dee. loolu nag moom loo gis taala. danañ ñëwaat ci yow. waaw ci beneen wàll boo xam ne bëgg naa nga ñëw ci mais ci ndéygee lay ñëw moom itam nga wax sa gis-gis ci affaire yi parce que ñaar lañ ñoo xam ne peut-être. xamante nga ak ñoom mais man li ma jaaxal mooy Sofia ñëpp nee nañu nit ku nit ku dal la nit ku yaru la ku jox nit la lan moo ko def loolu est-ce que jàppoon dañ koo tooñ ni ko waxee sax xamoo ko parce que ñoom ñaar ñëpp mm-hmm. xam naa leen bu baax a baax a baax mm-hmm. Sofia Sène danseuse u Mbathio Ndiaye woon waaw loolu tam wax nañ ma ko pendant des années Sofia Sène Ndeye Khady pendant des années ñu nekk ak Mbathio Ndiaye mu bàyyi ci Mbathio Ndiaye mm-hmm. Ouzin Keita indil ma Sophia Sène su may dem programme di ànd ak moom ak sofi rakku Ouzin Keita bi génn rakku Ouzin Keita bi génn àdduna danseuse boobu. yàlla na ko yàlla yërëm di xaare ko àll. démb bi ñu ma yónnee ojo bi dama ni non barki Cheikhul Khadim dama ni du moom dama tiit barke borom Touba dama tiit parce que dama ni non kii du Sofia parce que Sofia mi ma xam man du siggi sax xool nit maa xam nga ni Sénégal kenn dàq ko fee fecc wax nañ ma ko ku mën a fecc la ku bëgg na nit ku jox cër nit la fekk naa ko seen kër du benn du ñaar koñ ñoom garga la dëkk kon ñoom sos papaam gi bi mu gaañoo maay seul artiste bi fa njëkk Sophia Sène fii parcelle d'accord artiste bu dugg Paris mu yàq temps ñëw fekk si la wala nga ñëw këram mu teral la defal la teraanga. il que jëkkër ji dem borom dara man avant muy am jëkkër laa wax. man avant muy am jëkkër laa wax parce que man Sophia sama doom la. man sama doom la. Mhm. man je le dis haut et li mu wax nii man daf ma daf ma choqué parce que musuma ko Sofia musul bëgg lu ñaaw. barke alxuraan fu mu musaan fekk ñaari nit yu jote Sofia dina ko defar muy ànd ak sama doom nag sama sama rakk sama xarit koo xam ne sama groupe la nekkoon muy géwél bàyyi. d'accord ma fier ci ñoom nag lu ñu am dimbali seen ndey yi fii xam nga yëpp lan moo koy indi. lu koy indi fréquentation. fréquentation bu baaxul. non waxuma bu baaxul. wala bu bari nga ciy bëgg wax. fréquentation. d'accord moo indi coow yi yëpp détails yi yëpp man Sophia Sène mi ma xam Sophia tra Sophia Sène teraanga bu nekk sëq na koog mbaaco Sophia Sène saa yu mbaaco duggaan Paris. Mhm. Sophia Sène a ngi ànd ak mbaaco. boo xoolee Vendôme bi après Bercy bi bi mbaa ci di tëgg Sofia moo taxawoon di ko baatare xaalis vidéo eh, vidéo yi ñëpp gis nañ ko mhm. yàlla nañ yàlla musal ci seytaane donc lan moo xew am na lu xew ba Sofia génn wax est-ce que tooñuñu ko nga foofu laa bëgg a jëm am na lu xew ba Sofia génn wax mhm. man nag woowu ma Sofia woowu ma mbaaju mhm. parce que xaw ma nu mu demee te duma ci laaj kenn nu mu demee duma ci laaj kenn parce que ba ñuy ànd fekkew ma nag de mm-hmm. ba ñuy gisante France fekkew ma de mais man pour man yii warul mën a am ci seen diggante ah, man Sofia mi ma xam bu waxee rek am na lu tax mu wax dañ koo tooñ ah, parce que nag man moom waxuma pour dara mais dama def gëstu ci moom ma ne ba nga doon gëstu man nga waroon woo wala nga woo Ouzin Keita wax ma wala Pape musaa Sonko wala Babacar Gueye wala Nogoy Ngom wala Fatou ñu wax la kan mooy Sophia Sène kon Sophia sës na puisque dañ ko dafa am xew fu kii moo tax mu jékki-jékki explosé wu man Jimbori lii moo tax man dama ragal ñu bari ñu ngi naan ma dangaa ragal non man at bi ma juddoo waxtu yu ma juddoo tàppet dugg juddoo fa ragal juddoo fa mais yenn yi du du ragal daw coow la ak am looy dawale sa bopp ak am looy maytule sa bopp man xajuma ci gàcce ñemewuma gàcce barki Cheikhul Khadim yu bari dama koy dawale sama bopp moo tax yu bari duma ci bëgg dugg foo ma gis man kese ngay gis ma ànd su ma àndul ak si Sylla maa ngi ànd ak Boka jeex na bugguma fréquentation man sama jëkkër mooy sama xarit xale jigéen yi li ñu xewal léegi dama yendu ci kër diw diw ñëwal toggal ma ngeen dajaloo wax waxu jàmbur dajaloo dugg ci ay affaire jàmbur après ñu ngeen ngeen génn ñu nettaliwaat ko keneen nettalante bi non man je préfère ma rester sama coin man ah, boo ñu xas ma ni ma baadoo la laa aw ma dara mais jërëjëf maa ngi sant yàlla moo gën ñu may woo ci ay wax yoo xamante ne ni yëguma tinu ma man je préfère que je reste dans moo coin tranquillement mais li ma gis ni man. dalul xel àndu jigéen daal xaw na doy waar daal. vraiment vraiment xaw na doy waar. mais mais yow placé wu nga pour mën leen a dajalewaat ñu nekkat benn parce que mbaacoo yéen ñaar benn ngeen Sofia sa doom la peut-être boo ci doxee tànki jàmm dana dana kii. Euh, man li ma la mën a wax mooy man problème bi mooy xaw ma lu problème problème oo nu problème problème moo xaw ma ko. Ah, yow yëgoo li xew. man yëguma li xew ni ko nit ñi gisee jot ojo yi man noonu lañ ma ko yónnee. noonu nga ci jotee yow noonu laa ci jotee. comprendre nga mais daal li ma la mën a wax ba wax la ko mooy. nañu nañu rafetaatal daal. rafetaatal dafa rafetul nga jóge nga nga nga nga toog ak sa nawle di yàq sa beneen nawle. xaw ma nag nu kaa demee xaw ma lan moo xew. lijjantiwuma sax man li xew. waaw yow fee bi daal. waaw kay moo la intéressé. mais nañ leen nañ nañ éviter yooyu. muy man ak muy keneen ak keneen ak ñëpp. c'est important li nga wax nii c'est c'est important message kàddu yu am solo nga nga nga yëkkati ci ci sujet boobu mais Jimbori ah. li ma bëggoon nga wax ci mooy est-ce que dëggantaan léegi li ñuy wax xarit ak ni ko gars yi jàngalee ni ñu décrire xarit boo demee ci eh, téere Sëñ Tuubaa boobu ñuy wax Nahju Xadaa il Xaaji ni mu décrire foofu xarit dem na ba naan xarit dëggantaan day nangoo gaañu pour xaritam sauver. Mhm. est que amati mais xam nga ñoom seen daje yi ak li ngay wax nekkul benn de. Hmm. oui daje bi ñuy daje pour xarit am fa. waaw ñoom dajewuñu daje yooyu. ban façon daje la ñuy daje li leen dajale xam nga ko. Jimbori. yaa ngi dégg xam nga lan moom ah. man doguma la ah. ah. baal ma ma expliqué la. Ah. man des fois billahi wallahi wal kitaab bi yàlla bu ma màggali Tuubaa barki Cheikhul Khadim. des fois damay toog ñu woo ma ñu ne ma jotaay bi ñoom diw toogoon lañ la fa yàq. Eh, yàlla na ma yàlla musal ci yow mi ñëw di ma ko wax. waaw. man li may dégg. am na ñoo xam ne duñ ko dégg te ñu ma koy wax pourtant chaque jour maa ngi ak ñoom séq ak ñoom jàmm fu ma leen gis tey laa leen gën a fonk te pour pourtant la nuy wax ak ma cay jot la ñuy lañ may yàq di ko yàq sama jëkkër di ko yàq ci sëy bi may sëy lépp suma loxo bii lay tegu. Mhm. dem naa ba dégg ci benn audio boo xamante ne bu ma la ko tegaloon tey nga ne noonoo du ay ñoom diw ñoo wax lii. Mhm. te ku ma ci war a yëkkat sama téléphone yëkkat sama téléphone wax ak yow dinaa wax ak yow. Mhm. discrètement mais du ma ne diw nee na ma yow moo ko nettali la nga wax lu tax génne woo ko. Ah. nga génne la ñooñu wax mais ma wax la benn affaire. ma wax la benn affaire. gis nga kii ñëw di nettali. yaa ngi dégg. bu ragal day am ragalal kooku. ragalal kooku. yaa ngi dégg ba pare gis nga bu dee jëw la wala wax jëwal sa ndey wala nga jëw sa baay parce que booy wax ci nit ki ay sa yiw la ñuy jël di jox kee di jël ay baakaaram di la yan. mais dama ne ñun dañ comprendre xam nga mooy lan. kenn ku nekk xam nga ñun Sénégal dafa def ay groupe group te ñun xàmmeewuñu groupe yi Aliou. d'accord Aliou xam nga sànq da ngay yëkkati ne la moo xarit. xarit dafa am dafa am si daje bu muy am am na daje yoo xam ne du fa am munu fa am munu fa génnee. yaa ngi dégg ab da ba pare euh, kaam dara lan moo leen dajale. lan moo leen dajale pour yow. waxal. non xam nga mun ngeen dajeek ak nit nga am nit ki nga am mbetteel ci moom parce que tey ñoom ñooñu ñëpp sabara leen boole. waaw du noonu bi leen sabar boolee ba pare daje aar dafa am ay affaires yu ci nekk léeg man suñu kër duma fa xaj parce que bëgguñu aar man li ma lay wax. dund naa ko xam naa. léegi bu fekkante ne ñoom li may dund bugguñu ko. Ndeye Gueye mii moom laa koy dundandool. dafa daf may daf may jàpp ba nga xam ni mhm. damay bàyyi suñu kër dem nekk ak Ndeye ah. parce que suñu kër xajuma fa parce que li may def dañ naan ma lii ñàq jom la mun nga def lii mun nga def laa léegi ndax kon léegi lan moo leen dajale. aar dajale. wa kii dafa la lim ànd nag kii mu ñëw ànd ak kii mu ñëw ànd ak kii ku baax la. mun nga baax mais li leen di dajale tamit dafa am li foog ñu koy xool. Mhm. Sénégal léeg-léeg da ngay gis ku numéro cinquante ñun ñëpp xam ne kii numéro cinquante la ñun ñu ñëw naan quarante neuf mhm. ak ak ak trente sept mhm. te dafa ñuy leer ni lii cinquante la yaa ngi dégg. li nga xam ne nii moo ëmb daje bi. li ëmb daje bi ci boppam loolu ngay njëkk a xool ba pare parce que bi ñuy daje ay la moo xarit ay kóllëre. ay yooyu vraiment mun di léeg nag xam nga guy dina juri dëkk day am ci ci affaire yooyu mais jafe na lool pour mu am ci parce que aar kenn ku nekk sa bës moo la ñor yow mm-hmm. noo def ba dem moo la ñor yow mm-hmm. effectivement yaa ngi dégg kon foofu foofu coow yi ñuy coow parce que yonent bi dafa ne kii groupe bu nekk bu ñu xewlee ñooño ñooy ñëw waaw boo xewlee journaliste yi afaay ëpp mhm. su ma xewlee xay na théâtre kat ya ëpp fa bu xewlee fecc kat ya ëpp fa mhm. yaa ngi dégg waaw bala ngay yi balaa ñuy wax ni waa diw ak diw dañuy juboo diw ak diw dañuy ànd affaire yooyu wax dëgg yàlla dañoo war a xool daje bi ba pare ci biir daje bi nag ñuy xool lan parce que tey kaay ma wax la dara su fekkante ni mbaaco njaay dafa ñëw yaa nga teg mbaato nii léegi teg nga mbaaco mhm. teg keneen ki nu mu tudd seen euh, Sofia safiya seen yaa ngi dégg léegi da ngay rocc sabar yi ci ñoom léegi nga xool leen lan moo fay des. ngay wax noonu ok am na solo yaa ngi dégg. Mhm. boo roccee sabar yi ñoom ñooy ñan ba pare. Mhm. ñoom ñooy ñan léegi wul fële donc euh, ci sa kii bi boo roccee sabar yi daanaka. Euh, léegi nag xam nga tey ñun dañuy gis ni. aar ab am na ñu xam ni journaliste yi nag ñoo ñu daan wan lu bari xam nga lan lañ ñu daan wan. léegi Ndeye Gueye day siiw ñu ñëw si Ndeye Gueye seet Ndeye Gueye kan la daan àndal bi mu feccagut hmm. ak benn ban xaritam moo moo moo xam nga lim na léegi ay xaritam. Hmm. xarit yi mu lim yëpp duñ fecckat. waaw ah, ñoom day kenn fecc. la lay àndal. wala mu ànd ak boogaa xam nga moo ko waxal boppam kon daje bële lan la. daje bi sum normaloon lu tax ndey mënu fa am xarit te am na temps mu nekk chef kum ci dàqut fecc dàqoo ko fecc waxal te xam naa ni lu mu néew néew néew am na ñum ci lebal teraanga xanaa te ba pare lu loo loo loo xamadi xamadi xanaa di nga ne kii kat ñoo bokk benn génération nga bëgg ko man mii ñi ma doon joué wandoo xaaral baal ma tuuti ñi ma doon joué wandoo mais dama leen di bëgg contingent boo gis dañuy bëggante man ay dada mais contingent bi dul ngi dégg. man du sama xarit ay dada du sama xarit fecc boolewuñu parce que sama rakk la doon sëyal ay dada sama doon sëyal. Mhm. fecc boolewuñu kooku boolewuñu. sa quoi. kooku daf ma dañu dañu jàppante kóllëre man laay jàppe nit kóllëre ay da kóllëre laay laa jàppante ak moom parce que sama rakk la doon sëyal. Mhm. ba pare ñu bokk groupe. séquñu dara du jàmm ak salaam du dëgg kooku du du xarit kooku sama sama kóllëre la ñu am lu ñu lien bu ñu partage wóllëre la daal moom comprendre nga wóllëre la mhm. mais dama ni nañuy mhm. nañuy nañuy nañuy bàyyi nañuy bàyyi ñun jigéen ñi dañu xaw a doy tuuti damay wax saa su nekk rek dañuy dajaloo il ñu xool luñ jëmale am nañu am nañ nag jigéen yoo xamante ne amuñu jot sax taxaw foo leen fekk ñu ngi seen portable lijjanti business. liggéey. waaw bari na dajaloo. Hmm. yàq nit. am jot la rek. dajaloo waxante lu ñaaw nit koo xamante ni saa yoo toogee yaa ngi wax ci nit lu ñaaw. am jot rek. saa yoo toogee yaa ngi wax ci nit lu ñaaw doo waxal kenn du baax. mais nañ leen xoolaat toogaay yi. nit boo amul jot doo wax ci kenn. boo amee temps da ngay wax ci. waaw da wax ci mu da ngay wax puisque temps bee la nga nañ leen delloosi waxuma kenn nag sama bopp dama cee jiital sama bopp jiital ñëpp nag. Mm. nañ leen delloosi waat xel yi xam nga ñu raxasaat xol yi. jéem a defar parce que sa sa digganteeg sa nit bul nangu dara di ko yàq ci àdduna. surtout nag koo xamante ne am nga fu ngeen jaar bu ko dara yàq. Mm-hmm. lu am solo nga wax am na solo message bu am solo nga lancé donc muy problème boo xam ne comme liñ ci ñëpp wax rek nañu fexe ba mu ba rafet yàgg na ak nit lu ne seq nañ ko donc bu dara tax mbir moomu en tout cas daal Aliou ah. ñoom war nañoo rus léegi dañuy génne kenn teg ko ñi ci des xool ci moom parce que boo doon kii Aïda Dada mm. Aïda Dada mm-hmm. bi ñuy indi kaa ba léegi kaawu Aïda Dada mosu fi ñëw ku koy kaa. ah xaaral tuuti rek may ma tuuti. kooku balaa nga koy kaa mu wax la ba wër la. léegi may ma ko ci dara. may ma wuy ma wuy ma kaa mosu fi ñëw waxal. Ah. ba pare benn affaire na ko xam. kon lan moo tax ñoom ñuy coow rek te moom coowut. gis nga dara boo ci nekkee bu jeexee. da da déedéet da seet da ngay seet. ah Jimbori da ngay. man nag maa mës dégg ci coow. nga ni man nag maa mës dégg ci coow neen nga. yaa ngi dégg déggul ma wax la <laughs> déggul ma wax la mhm. ni dara boo koy def boo demee ba loolu paase mhm. est-ce que jotul la nga waroon def lam la xañoon defoo ko mhm. nga delluwaat ginnaaw dem defi ko. d'accord parce que bi ngay fecc di def say affaire yaa ngi dégg. am na loo lu la waroon loo waroon a def te defoo ko léegi bi nga paree li ngay def yaa ngi dégg est-ce que doo demaat defi li ngay def parce que tamit ni ñu meloon ñoom ci kiliba ak affaire yooyu mënatuñ ko mel wax dëgg yàlla waxal rek ba pare coow li nan la nekkee ci ci ñooñu kese di bur wi rek moo moo jaaxal ñëpp donc ki ñu doon tudd léegi muy muy muy ayda Aïda Dada nga ne kaawam kenn mësu koo wax te coow li bari na lool moom la ñuy dugal donc Aïda ñu ngi lay ziar allo Aida. maa ngi lay ziar. delloo ziar. naka yi tey. ça alhamdulilah macha allah. yaa ngi en direct ci euh, émission Top Cas ci Feeling Dakar TV dañ lay bàyyi nga nuyoog ñuy suivre d' abord. Ah, <laughs> loolu kontaan naa ci macha allah. Mhm. di leen nuyu yéen ñëpp. Mhm. alo waaw ñu ngi lay dégg bu baax a baax. waaw di ñëpp di nuyu waa nga xam ne macha allah chaque jour dañ may invité. mais day tombé ak maam ci lu may nekk di leen jéggalu tamit surtout loolu. yàllaa ko waaw waaw di leen jéggalu di nuyu nag sama sama fan si Jimbori moom laa bëgg moom chaque jour moo xëndéegee. nuyu naa ko ayda waaw Jimbori na mu ngi lay mu ngi lay mu ngi lay nuyu moom itam di la ziar bu baax a a baax. allo. waaw yaa may dégg. maa leen dégg bu baax. voilà euh, li tax ñu ñu ñu woo dañuy waxtaan ci coow li nga xam ne moo dox ci diggante euh, Mbathio ak Sophia Sophia Sène su ma juumul ci ci ci loolu lañ bëgg nga def ci sa intervention parce que dañuy wax ba tudd sa tur ñu firndeel ni yow kat li jamono di dox coow lu ne am na fi ku ne tudd nañ ko mais yow ba tey kenn mësulaa dégg ci benn coow boo xam ne am na euh, lan ngay wax ci loolu. waa li ma ci wax mooy que Sophia Sène sama rakk la. Euh, Aïda Thiam sama xarit lañu ñu fowandoo xale. Mhm. ma xam leen nag fekk leen Paris. Mhm. Sophia Sène ban ne ko bay yaay la daan wax Aïda Thiam. Aïda Thiam di mhm. ko wax sama doom bëgg ko comme ku mu jur. d'accord waaye nag seytaan dafa bari doole. am na yenn yoo xam nit bu koy def sa da ko war a xalaat. parce que dem nañu ba mën naa ne suñu aar bi fecc bi. am na ñoo xam ne ñu ngi koy yàq. Mm-hmm. ndax tey bu ñu nee benn Aïda Dada def na lu kon du ñu tudd ay Dada kes dañ naan ñëpp. fecckat yi. waaw fecckat yëpp te loolu ñun fecckat dañ ko war a arrêté. Mm-hmm. parce que nag chaque jour nit def fi dara ñu taxaw. Mm-hmm. nekkat carrément waruñu wax nii nit waruñu mais bu yàggee nag loolu day ëpp wala day nduru nit ki buzz la bëgg wala nit ki loolu mooy vieux quoi. loolu ñu fecckat ñoo ci war a jóg. parce que ñun ñëpp ay jigéen lañ kenn ku seen di nga woo sa waxtaan ak moom. Mhm. kaf ak moom mais enregistrement pour lan jamono bi ñu nekk enregistré chaque jour enregistré koo waxal mu ngi lay pour tas ko. Mhm. ñaari yi ànd yaay ak doom ba ñu ñëwee France ba tey Sofia seen xale bu baax la. Mhm. Aïda Thiam kenn gënu ko ci àdduna démb rek maak moom ñoo nekkoon. ak Ndeye Gueye moom toog. mais am na loo xam ne rafetul. waay chaque indi benn benn coow boo xam ne yow pour yow buzz du parce que yow yaa ngi yàq deru fecckat yi te loolu ñun waratuñ ko nanguñu fecckat yi. d' accord. waaw. Mhm. donc comme ni ma wax sànq yow yow yow bokk nga ci ci ci raar fecckat yi nga xam ne fecc nañu ba bàyyi mais kenn déggu leen ci ci benn bruit yi nekkuñu ci benn coow euh, ban ban secret nga nga nga amee ci loolu. waa ragal rek toog sama kër deew ma dikku ma bu ma waree tukki tukki su ma waree ñëw ñëw su ma waree def lu am fulla ma def ko luy indi coow lu ñuy boole bokk ci. Mhm. ku ci am problème nag ak ku mënta doon dinaa jël sama téléphone ne la man sax d'accord yërëm lii boroo ko def nii warul demee nii defal nii defal nii defal nii nga ànd ceeg man mu neex àndoo ceeg man ma tegee la ne loolu daal laay dundee bëgguma am ak kenn problème d'accord waaw ah. d'accord donc donc sànq am nga loo ci jot dafa mel ni ñu baree bari ñu ngi xoolaat hmm. feccu léegi di ko hmm? comparer ak feccu démb ah? maanaam feccu léegi ak feccu démb dégguma bu baax Euh, dama ni euh, ñu bare bari dañuy comparer feccu léegi ak feccu démb mais dañu gis ne feccu démb moo gën a moo gën a am lu luñ ci mën a jëlee ci ay xeetu jàng ak njariñ lu bokkul ak léegi maanaam léegi dafa mel ni fecc moom amatul est-ce que loolu yow d'accord nga ci. ah bien sûr d'accord naa ci kay parce que nag neexul fecc dëgg ba da nga daan fecc baara mbay ca kaw ràmbal. Mhm. dëgg la lëmbal neex na ci kaw seen nga nekk ak fecc ak waykat. Mhm. mu teg lëmbal nga lëmbalal ko. Mhm. mais mun mënuñu yàq suñu aar bi loo xam ne tey fecckat yépp dañuy lëmbal léegi dangay gis ñoo xam ne sax duñu ay fecckat mais tey ñu ngi lëmbal dugg nañ ci par force. Hmm. ñu xam dañoo fecc ba sonn dugg aar taw dugg car rapide dugg bis taw ba sonn tey ñoo xam dañoo ñëw duñu ay artiste duñu dara ñëw dugg di lëmbal kese takk ay hmm. ñoo xam ne bokkuñu woon suñu aar sax fexe nañ ba dugg ci. Hmm. mais loolu du yoon dañ ko war a dindi parce que tey da ngay a benn soirée gis xale boo xam du fecckat kenn xam lëmbal rek lay def. soo ko ne woon léegi bëratal baara may xamul nuñ koy defee ni ñuy tegee tànk mhm. c'est normal tey mën nga lëmbal am na son boo xam ne lëmbal la mais tam dañu war a fecc yi bu ñu yàq suñu culture mhm. boo demee Europe soxlawuñu lëmbal ñàkk ñi ñooñ dàq lëmbal fopp mhm. ku nekk ak sa li nga muy sa culture mais bu ñu yàq suñu aar bi nañ leen fecc sabar baara mbay ràmbal ndëj ko mu wàcc ci suuf lu dul sax lëmbal lëmbal amul sens parce que tey ku toog këram sax génnul soo ko tegalee fer mu lëmbal effectivement ah voilà mi ngi noonu. te fecc suñu aar bi mi ngi yàq ñun fecckat ñoo ci war a jóg. fecc da daan wax fecc day wax day ànd ak mi woykat bi di wax li waykat bi di wax. Mm-hmm. waaw loolu ah, moom aar moom ah, yàqu na moom wax dëgg yàlla ndax bu xool ndéygee bu njëkk ba daan fecc Bercy. Mm-hmm. taxaw kaw si nga xam ne fecckat taxaw na. bu lëmbal jotee mu lëmbal mais bu baaram mbay taxawee ñu ne ko ndéygee mu ni bërët. mais mm-hmm. loolu amatul. ndeysaan amatul fenn fenn fenn suñu yaay ndey xadi ñang dañ daan fecc teg ay sër yu bari ana fecc te tey koo ko wax wala nga def interview wax ko mu mer la mais man ragaluma ko ma mer dëgg laa bëgg te ci lay dox. Hmm, effectivement voilà. waaw hmm. ah. ñu ngi lay jaajëfal bu baax soxna Aïda. merci beaucoup di leen nuyu lu bari bari. jërëjëf kontaan nañ bu baax jërëjëf jërëjëf merci. muy noonu Aïda Aïda Aïda la amoon. Aïda Dada moom itam mu bokk ci fecckat yi wax na lu am solo ci coow li wax itam lu am solo ci côté fecc xam naa loolu moom ndéegee nga koy waaj rek waaye war nga def plateau spécial ci mhm. fecckat yi mhm. waxtaan ci bu baax a baax génn ci yeneen façon idée euh, bu fekkee amul loo ci dolli ñu jàll ci beneen non mais man li ma si dolli mooy comme moom li mu wax nii Aïda Dada li mu wax nii euh, lu baax la quoi mhm. wax dëgg yàlla parce man chaque émission nga dégg ma ne dañoo waroon ubbi école danse chaque jour ma wax. waaw xam lu tax. Sénégal daf affaire yi dafa xoola xam nga xànjar bu daanu tasaaroo juróomi dërëm ànd ak dërëm ak yu kenn xamul noonu la demee Sénégal ay groupe yi xam nga group yi bu njëkk ba groupe fecckat yi dañ daan wax ñoom diw la waykat yi mbaboor même woy ñi daan way mbaboor dañ leen daan xàmmee woykatu kursu yi dañ leen daan xàmmee woykatu làmb yi dañ leen daan xàmmee katu làmb yi dañ leen daan xàmme di xàmme lépp mais léegi xàmmeetoo kii mooy kii wala kee mooy kee. lim la wax nii dëgg la parce que léegi fecc mi yëpp yow sa ndigg na baax rek nga denc sa ah, sa gere su béy boo ñëwee diw ko ci na sa yax nangu rek lëmbal gu dul jeex da ngay gis ko xam ne day yëkkati loxo bi euh, comme ni ko ñag yi di defee mhm. te ñag yi ñoo la dàq lëmbal fufu la ñuy lekk ñii ceebu jën la ñuy lekk mhm. ceeb boo ko booleeg lëmbal da ngay dee yaa ngi dégg <laughs> ba doxul. lu leer laa la wax. yaa ngi dégg man léeg-léeg damay gis xanaa am loo léeg-léeg soirée day départ Aliou soirée bi ni li muy neex neex kenn laay yërëm. billaahi xoola léeg-léeg damay wax sama jabar dañuy toog di seetaan mm-hmm. ma ne ko man way yëpp fecckat laa yërëm. te ma ne ko boo demee sax la muy jot tuuti lay doon. te ba pare fe xanaa am loo fecckat ak dawalkatu welooyam. foo leen fekk dañuy ñaq rek. <laughs> waaw te Aliou. xanaa am loo Sénégal dafa am benn affaire bu xam ni respecté wuñ ko. am na ndox mu xam ni ndox yaa ngi may déglu. jógewul ci suuf jógewul ci asamaan. xam nga ban ndox la. mooy ñaq. mooy ñaq. ba pare li ci fecckat di ba di joxe. ak dawalkatu welo xam nga welo danga naan dimbali ma ma dimbali la dimbali ma ma dimbali la yaa ngi dégg waaw dimbali ma ma dimbali la yaa ngi dégg xoola dafa métti dafa metti xoolal Sénégal loolu dafa metti fecc daa metti te duñ joxuñu ko ak xam fecckat joxuñu ko ak xam mhm. léeg-léeg duñ ko jox cëram dawalkatu welo yi ak même ba dem na ba ci karaate karaate dañuy dem fële am kii de am medaay ñëw ah. medaay bi dañ koy xeeb footballeur bi kenn génnewul deretam dafa football ñu teg ko ci kii kii médaille bi mu indi deret moo koy indi ak bëñ bu damm. boo ko tegee ci football kon ñoom ñoo raw football. am na ñu demoon fan yi nu ñu tudd xaw ma nan body xaw ma nan bod lan body bi ñu ñëwee kenn recevoiru leen joxuñu leen dërëm ay dañ daal mu wax dëgg la. muy noonu jërëjëf ah. ci cas boobu may préciser waat encore que ni am na ku ñu ciy tudd pour yenn sites yi nga xam ne dañuy faral di génn di bind. ak di jël photo di taf parce que des fois dañuy boole lu bokk. def ku ci mel ni Pendo. Ah. Pendo moom euh, moom yoonam nekku ci. yoonam nekku ci moom nag comme ni ko Jimboori waxee. yëf yi mu ngi xewoon ci soirée bi mu doon way waaye moom moment boobu ma ngay way yëgut li xew par ci lañ ko ciy tudd. ba koo jañax yëf yi ci la daal di dem. lijjanti yëf yi ba mu leer kon moom bokk ci. yoonam nekku ci nañ ko ci nañ ko ci bàyyi kuy dugal mën ngaa dugal leneen lu la neex mais nag moom nee na bu ko ci kenn boole ci làmmiñu boppam Euh, ñu jàll ci beneen cas mu ngi yitteel artistes yi nga xam moom la ñuy woowee Viviane Wally Seck Sidi Diop euh, journal Les Échos su ma juumul su ma juumul ah